mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak Rewmi FM dal leen jàmm ci seen émission démb ak tey euh, tey ñu ngi ci dimanche ñaar fukki fan ak juróom weeru janvier atum 2020 am mbégte dalal fii Ibrahima amaa Diémé bokk ci euh, groupe de réflexion pour la paix en Casamance di kuréel googu nga xam ne dafa ëmb ay kàngam ay doomi Sénégal ay doomi Casamance euh, ñoo xam ni jàmmi Casamance moo leen ñor ci la ñuy dox di ci wax di ci xëy di ci gont ñu war a waxtaanee nag tey coowal Casamance boobu nga xam ne bi mu léegi yàgg na sa wàll lu ciy sa responsabilité waaye itam yan jéego la ñu ci jot a def ba fi ñu toll ngir am saafara ak itam fan la crise boobu toll tey sëñ bi Jemme ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la fii di euh, bég lool ci euh, temps bi nga ñu may ngir waxtaanee lii ma fi junj léegi. Euh, maa ngi lay fay soxna Fatou. Thiam Ngom maa ngi profité aussi di nuyu seen auditeur réew mi FM jëm di leen jéejëfal di fait que euh, régulièrement da ngeen may may occasion ma toogee seen i jumtuwaay ma mën a waxtaan ak euh, suñu mbokk waa Sénégal yi ak suñu mbokk àddina presque spécialement ci wàllu euh, mbirum Casamance donc bu ñu fi dellu soité tey ci ndorteel at bi ma yaakaar ne rek itam lu rafet la parce que ñu ngi 2020 2020 digganteem ak bu coow li di commencé am na te fanweeri at ak juróom-ñett donc yàgg na te itam euh, ñu war ci sant yàlla parce que euh, ci at bi euh, justement ñu yaakaar ne rek incha allahu rabi euh, xëy na coow li dina nekk peut lu ñuy nettali ndax euh, pratiquement soreetuñu fu ñu koy jeexalee. kon baax na muy wane ne yëf yi mi ngi sori dinañu ci ñëw waaye fi ma bëgg ñu commencé mooy coowal Casamance kañ la commencé ak euh, ci lan la commencé. waaw ñu ngi ci jamono joo xamante ne jumtuwaayu tas xibaar yi xare yi dañuy bari waaye nag 1982 bu coow li di juddu daanaka pratiquement lu fi newoon ci moyen de communication lu néew la woon. woon waa RTS ñoo fi ne woon euh, à l'époque ORTS la woon ensuite euh, mu am quelques organes ñoo xamante ne parti politique euh, d'opposition yi ñoo ko yore woon te mu ne dool Dakar rek la ne woon daanaka ce qui fait que luñ ciy wax depuis jamono boobu ba ay atam 90 nekkuloon loo xamante ne dafa am ci lu mu sukkandiku woon te lu am donc ci nettali rek lañ ko déggee woon kenn ku nekk nga imaginer bindal lu la neex wala wax lu la neex. mais euh, coow li comme ni ma la ko waxee mu ngi juddoo en 82 mu ngi feeñ. en mais xam nga il faut aussi faire la différence entre juddu ak feeñ. 1982 décembre 82 principalement le 26 décembre 1982 ci la manifestation bi am dans les artères de Ziguinchor. benn marche la woon d'ailleurs jógee fu mu jógee ñëw directement gouvernance wàcce drapeau Sénégal monter drapeau bu weex mooy drapeau jàmm. Euh, ñu jóge fa bëgg a dem gendarmerie bu Dodi euh, foofu la euh, force de l'ordre di wu mooy gendarmerie mu am quelques difficultés am ñaar ñu ci jota am gaañu gaañu kii si loxo kii ci kanam gi ci weetu bët bi donc loolu moo amoon le 26 décembre. marche lan lañ doon wax. li doon wax effectivement dañu ne euh, seen seen réew la ñu bëgg. Euh, seen suuf la ñu bëgg. donc moo tax ñu ñëw wàccee drapeau Sénégal yéegal drapeau euh, bu weex mais xam nga diggante. Euh, wàccee drapeau Sénégal drapeau bu weex. plus tard ñu gis benn drapeau boo xam ne mu am ay couleur ñu ne loolu mooy drapeau MFDC mooy drapeau Casamance am nga donc am na lu bari lu ci évoluer loolu itam il faut nit ñi bay ci xel. te ñun lu ñu xam ci drapeau bu weex mooy drapeau jàmm normalement d'ailleurs ñoom loolu la ñuy wax dañu ne dañu génnoon pour dox doxu jàmm ñu jànkonteel force de l'ordre ñu tiire ci seen kaw donc loolu moo indi par la suite maintenant lépp lu ñu jot dund ba tey donc ma jaakaar ne rek loolu lu war a euh, bàyyi xel la. diggante drapeau bu weex bi ak drapeau MFDC bi c'est vrai que lu bari jaar na fi mais wax nga aussi lu am solo diggante bi coow li di fës ba marche di am xëy na am na lu ko jiitu mooy xëy na ay waxtaan loo xam ne daan nañ ko euh, programmer ci biir ndax euh, ba ñuy jóg jàmmaleen leen taxoon a jóg est-ce que aussi bu dee jàmmaleen leen taxoon jóg c'est parce que dafa amoon fitna wala dañoo gisul woon seen bopp ci niñ yore woon dëkk beeg suuf yeeg y demee noonu. oui 1982 war na nekk date boo xam ne bépp sénégalais war na ko fàttaliku. ndax euh, Sénégal mu ngi moom boppam en 1960. c'est deux ans avant c'était en 58 dans le cadre de la fédération du Mali ensuite fédération bi éclaté et puis bon euh, donc euh, Sénégal nekk indépendant en 1960 commencé nag moom boppam commencé yor boppam te ni ma koy fàttali souvent Casamance dafa nekk une des régions boo xamee ne dafa sori triple triple sori triple ñetti yoon la sore non pas moo fi gën a sori ci wàllum distance mm-hmm. non parce que Kédougou moo fi gën a sori Casamance Matam moo fi gën a sori Casamance boo partee de Dakar mm-hmm. mais euh, booy dem Casamance foog nga jéggi benn réew bu étranger mooy gambi booy jógee Casamance si ñëw Dakar même chose foog nga mm-hmm. jéggi boobu réew donc déjà le fait que nga war a dugg réew jàmbur nga mm. génn déjà tax na ba boo fa xasee ba dugg mm. foofu gan nga même boo fa defee dix minutes seulement mais dix minutes yooyu mën na la mën na mel ni yow ci bés wala ñaari bés ba ñetti mm. fet ñetti fan parce que euh, réew jàmbur nga ne ak ay réalité am première difficulté boobu deuxième difficulté mooy réew boobu boo fa duggee nga fekk fa dex bi ba nga xamante ne heureusement léegi am nañ foofu pont. mais avant baag la woon. te baag bi léeg-léeg nga dugg si ñu ne la baag bi dafa paan. nga war faa fanaan. yow xam loolu paan bi lan la. Mm. est-ce que ñoo tey ñoo ko tey ñu ne baag bi dafa paan est-ce que réellement baag dafa paan waaye dañu ne baag bi dafa paan. Mm. ngeen toog di xaar de 5 6 à partir de 7 heures huit heures. Mm. léeg-léeg di ngeen fa toog ba ay 18 heures. baag bi def ñaari rotation mu arrêté. donc ñu ci des yëpp di ngeen fa fanaan. donc jóge fii dem Ziguinchor wala jógee Ziguinchor wala Kolda ñëw Dakar mais. lu aléatoire la woon. da ngay dem rek parce que amoo pexe. Euh, ba keroog mu ngay egg. alors boobu mooy deuxième difficulté bi. troisième difficulté bi nag bu tax encore distance bi ba ni réew moomu du français lay lakk réew moomu anglais lay lakk te ñun Sénégal ñuy lakk francais mooy langue de travail. donc ñu am réalité euh, anglo-saxonne. Euh, ñun ñu am réalité francophone. donc yooyu yëpp tax na ba boo xasee ba dugg Gambie boo boo defee tuuti erreur rek. ñu daal di la yóbbu ñu ne dañu la yóbbu Mansa Konko mooy seen police bu gënoon a jege foofu dañ la fay subir loolu ne mais donc je crois que 1960 1980 ça fait juste vingt ans mm-hmm. pour un pays c'est trop court mm-hmm. pour nit ñi am jotu euh, tabax loo xamante ne looy gën a loolu mooy doon fondement fondement nation bi mm. ça c'est la vérité mm-hmm. te malheureusement nit ñi bàyyiñ ci xel donc man mii nga xamee ne dama doon yëngatu ci politique boobu jamono euh, ci Ziguinchor euh, ci sama parti bopp euh, ak ñu ko bokkal. man parti woon. PDS. ñun bokk nañ ci ñu sànc PDS ci Sénégal. donc ñu daal di xalaat. en 1980. donc parce que dama doon dem ci région bi. Vélingara Oussouye fu ne. n'est-ce pas Bignona. ay Kalifourou partout partout vraiment Sénobam Mpaak. Jembereen ba euh, Gulumbu mm. donc ma gis ni am na loo xamante ne buñ ci bayul xel rek dina indi difficulté donc en tant que responsable parti boobu mm-hmm. ci wàllu jeunes yi mm-hmm. ma daal di organiser un cycle de conférence mm-hmm. en 1980 ci six départements Ziguinchor euh, région Casamance yëpp defoon naa ko parce que boobu c'était la grande région de Casamance depuis Vélingara Oussouye Bignona Ziguinchor euh, ba euh, Sédhiou n'est-ce pas Kolda Sédhiou la ñu terminé sunu conférence thème conférence bi la woon lan la woon euh, ñu ngi ñaar fukki at après euh, indépendance su Sénégal ci wàllu région Casamance am na loo xamante ne buñ ko ci teeloo la saafara dina jur loo xamante ne dinañu indi ay jafe-jafe yu mag te conférence yooyu comme ay conférence dans le cadre d'un parti légal la woon mais daan nañu invité autorités yi mais tous les préfets préfet bu nekk yónnee naa ko invitation euh, commandant de brigade gendarmerie bu nekk jot na invitation commandant de euh, commissaire de police bu ne am na invitation xam ne euh, jeune PDS yi dinañu organiser tel conférence tel endroit dégg nga conférence nationale bi mooy conclusion bi Euh, Sédhiou lañ ko teniree. te direction parti bi am ñu mu yónnee. ci indi jiitu woon délégation bi ab lay Faye la woon. malheureusement avec les difficultés du bac ni ma ko waxee. Euh, dañu départ Dakar samedi. malheureusement teel ñu dem ñu obligé fanaan baag Gambie. Mm. te conférence bi nekkoon dimanche dimanche matin. donc ñun dañu toog ba ceeleeg sa dimanche gisuñu leen à partir de 10 heures maa leen bon comme euh, ñoom ñu ngi naroon a ñëw te yegseeguñu nañu commencé parce que après fakk na ñi ñibbi parce que le lendemain lundi liggéey la woon ñu dugg commencé suñu conférence dema dema dema dema dem ba ci digg bi délégation bi si buñ fi yegsee ñu dugg ci salle bi euh, ñu may leen tuuti ñu toog man ma continuer conférence bi ba ma jeexal bi muy jeexee ab lay fay ci boppam. Mm-hmm. jóg ñëw euh, ne ma félicitation mais euh, vraiment euh, tu n'es pas sérieux ma ne ko lan la mu ne ma comment tu prends tout ce que Mamadou Dia a écrit dans son journal là mm-hmm. nga ne yow yaay développé fii conférence mm-hmm. journal bi mu ngi tuddoon ànd soppi. ànd sa boobu Dakar la génnee Ablaye Faye indaale ko titre bi effectivement la Casamance vingt ans après l'indépendance okay. ça c'est un titre de Mamadou Dia et il dit la même chose que am na loo xam ne bu ñu ko ci deful bu ñu jógul ah dinañu jànkonteel difficulté yoo xam ne dina dinañu jural ay jafe-jafe yu bari. boobu enclavement bi ni ci doon dund. moo nekkoon principal problème principal problème bi léegi boole ko nag yeneen i problème parce que euh, demoon nañu ba administration ci boppam. jëloon na Casamance comme région. de punition pour certains agents. waaw yi fa nekk. voilà bala ngaa boo nekkee fonctionnaire quelle que soit catégorie bi nga bokk. su fekkente ne dañu jàppane rek yow euh, ànduloo ak ñoom. Hmm. ñu daal di la affecté Casamance. donc comme euh, fonctionnaire yooyu itam mais c'est de bonne guerre bu ñu demee itam. def leneen def leneen lu dul euh, lu ñu leen santaane. donc toog du ñu def dara. si bien que diggante population yi ak administration bi y avait beaucoup de dégg nga yooyu laa constaté woon ba ma ne ah lii buñ ci jógul de hmm. dina am problème. parce que dañu war ñëw pour servir leen. mais buñ deful seen liggéey. deful seen liggéey euh, ñoom itam bu ñu jàppee bu ñu jàppee ne dañ leen indi fii pour sanctionner leen hmm. bon ñu bañ a def dara et ensuite comme daañu ñoo daaw ñoo na xaar kuy ñëw hmm. di leen contrôler donc finalement c' était ouvert à tout. donc loolu laa laa doon yëgal administration bi ne leen def leen attention malheureusement bàyyi ci xel alors. ensuite nous sommes dans la période du début de démocratisation aussi c'est-à-dire que Sénégal dafa tolloon foo xamante ne à partir de 74 mm. donc la loi sur les partis politiques mm. a, a été modifiée acceptée par tout le monde donc mu mm. amoon ay partis d'opposition légale ñu commencé dugg mais en même temps am ay partis ñoom ñu ne duñu accepter la légalité duñu ko accepter mooy les la la gauche ñoom dañuy yaakaar ne euh, dem dans la légalité loolu c'est une trahison donc il faut ñu xeex dans la clandestinité donc ñii ñu ngi ci légalité bi mooy PDS. Euh, MRS ak euh, PAI bu Majum Diop. Euh, en face il y avait le parti socialiste. et à côté il y a tous les autres partis de la gauche. And Jëf LD PIT et cetera qui étaient dans la clandestinité ay xare bi ak ñoom seen. Mm. donc ñun ñëpp kenn ku nekk daal. comme dañu la fiché dañu xam ne kii agent bi bii parti la bokk. Mm. donc tout de suite euh, bu ñu la bëggee sanctionné ñu affecté la fu sori parmi la plupart des gens foofu la ñu leen affecté. donc résultat euh, ñi ñi dem dans une région déjà boo xam ne difficulté bi nekk. Mm, euh, digg mu ngi diggante Gambie ak Guinée-Bissau. Mm. Guinée-Bissau boo xamante ne jusqu'en 1975. ah Guinée-Bissau mu ngi doon xeex pour moom boppam. indépendance te Guinée-Bissau ak Casa ak Casamance pratiquement. Euh, c'est la même zone. parce que frontière bi diggante Ziguinchor ak Guinée-Bissau quinze kilomètres la donc ay ay ay amoon na influence. yu bëri bëri bëri bëri ci évolution population Casamance tout comme d'ailleurs population Casamance am na lu mu participer ci lu bari pour dimbale waa Guinée-Bissau pour ñu moom seen bopp. ci seen xeex diggante seen diggante xeex ak euh, portugais yi. donc population yi donc ñu am ay agents yu ñëw ñëw. ñu tenir un langage de parti d'opposition. Mm-hmm. di critiquer nguur gi et cetera donc mm-hmm. loolu c'est ça mm-hmm. devient un terreau facile. pour que euh, pour un rien pour un oui nit ñi mën a fippu. voilà un peu ce qui s'est passé. boo lekk nag dans la même période des années 70 amoon benn sécheresse bu rëy a bu marqué woon Sénégal. zone soudano-sahélienne d'ailleurs mais pour ce qui nous concerne Sénégal bi tax euh, population nekkoon nord Sénégal. depuis le fleuve ñëw Linguère euh, Louga ñoom seen ñu bëri surtout sàmmkat yi euh, ak cubalo yi daal di wàcc dem dans la zone de Casamance ñu dem installé wu principalement autour des villes et principalement autour de Ziguinchor loolu joxe lan comme résultat c'est ah, ça a été l'occupation euh, irrationnel de l'espace. ñooñu bu ñu ñëwee la plupart ñii ay nappkat lañu. Euh, ñi bu ñu nekkul nappkat ñu installé wu dans le commerce. ñi installé wu. euh, dans, euh, dans, dans l'exploitation euh, euh, des ressources forestières. Voilà ce qui s'est passé. Alors, nous avons souvent des accrochages avec les populations locales. parce que. ñu ñëw ñu moom. <coughs> oui oui donc dans le cadre de l'occupation de l'espace mais on on ne peut pas interdire en sénégalais nga ñëw nga installé dañuy dañuy ñëw rek. d'abord comme la Casamance c'est une région particulièrement hospitalière. boo ñëwee ngay gan ñu dalal la. nga toog discuter ak sa jaatigi nga ne ko lii laa bëgg a def mu ne la amul benn problème mën nga ko defee librement. donc gars yi di dem ba finalement les premiers problèmes. commencé diggante pêcherie. ci ci dex bi. Mm. parce que foofu Casamance yi ñoom day doon pêcher mais généralement c'est le poisson dañuy péché juste pour jaay tuuti. Mm. am dawal mm. le reste euh, ñi ñëw daal di gis ne dex bi bari na jën. bari na itam ay sipa ñu daal ñoom ñu def la pêche commerciale. ok di di jaay di napp di jaay. et ñuy napp crevette ak ñuy napp jën seen système napp bokkul donc ça fait beaucoup de problèmes entre mm-hmm. pêcheurs mm-hmm. et les questions de voisinage euh, malheureusement mënuñu ko régler euh, sans l'intervention de l'administration et malheureusement il se trouve que l'administration dans sa majorité boobu mm-hmm. jamono était constituée de gens ñuy affectés du nord vers le sud dégg nga donc bu ñu tranché dans tel sens ñi les locaux yaakaar ne oui dañuy jàppale seen i mbokk moo dañuy def lii gis nga loolu donc yu bari na ci euh, li constituer le terreau. bi indi frustration yi ñoo bari woon. ensuite léegi boo ñëwee dans l'urbanisation parce que des années 70 Sénégal moom boppam am mm-hmm. en 60 donc 70 commencé donc phénomène d'urbanisation les villes agrandissent mm-hmm. notamment Ziguinchor surtout avec le les migrations population yi jógee nord ñëw mm-hmm. c'est dans la zone alors il y a eu des euh, des lotissements. lotissement yi <coughs> ça suppose que oui dinañu dañuy daggaat suuf si bëgg a dëkk ñu jox la fi ngay dëkkee et cetera et souvent le lotissement c'est des routes c'est des espaces pour installer des infrastructures sociales mais yow boo bu fekkente ni yooyu sa maamaatimaam foofu la ñu newoon ñu ñëw ne la bon yow da nga fi jógee parce que école moo fi war a ne wala jógee fi parce que yoon moo fi war a jaar wala dispensaire moo fi war a jaar ensuite bi ñu demee ci répartition bi ñu jox la fi jox keneen koo xamee ne yow xamoo ko woon mm. ah gars gi commencé gis seen bopp ne ah ñun ñoo fi newoon léegi ñu indi ñi teg leen fi et cetera donc yooyu yëpp sans y a beaucoup de communication donc y a de compréhension mm. résultat euh, ñii nekk euh, dans les villes yaakaar ne ñii dañu ñëw ñu bees yi ñëw pour nangu seeni suuf. gis nga et eh, moi je il faut faire très attention parce que foo dem. ci àddina bu ñuy def lotissement. bu communication bi matul. forcé ma day indi ay frustration loolu lépp bokk na ci ni tax ba lorsque euh, en 1982. il y a eu cette marche là. ñu bëri dugg nañu ci sans savoir lan la kii dugg na fa parce que moom dafa yaakaar ne dañu jël mm. euh, loo loo loo maamam mm-hmm. ñu jox ko keneen mm-hmm. kii dugg ci parce que xëy na moom ci napp gi la amee frustration kii dugg ci parce que bon. nekk daal li la metti ak li nga jàpp moom nga indi ci marché bi la ñu indi ci marché bi mais marché pacifique la woon. parce que ñii ñëw yoruñu woon gànnaay. là aussi faut le préciser ñiy jóg jour boobu yoruñu woon gànnaay. marché euh, malheureusement. Euh, bu ñuy wàccee drapeau. gouvernement amuñu woon bon xam nga à l'époque kenn daawuloon wax ay wax autorisation. xam nga l'époque ñun politiciens yi ñoo doon souvent. bon on nous dit autorisation parce que da ngay informer l'autorité que tel jour di nga def sa sa sa sa meeting mais marche d'ailleurs kenn nekkuloon ci xelu kenn mm. c'est la première fois que mu nekk marche parce que foofu aussi en Casamance il faut préciser que les processions processions mm. nekk na ci aadawu population yi Euh, procession da ngeen jógee bërëb sangam ñëpp jóg ngeen yor seen xobu euh, garab mhm. ngeen wëy et cetera dem mhm. euh, les femmes aussi dañuy am seen i procession bopp pour def mhm. ay prières donc foofu procession nekk na ci aada alors que peut-être ailleurs euh, bon on parle de marche mmh. voilà mais là c'était une procession mais c'est une procession qui partait d'un point vers un autre point et dans la marche na kan moo décidé nekk dañuy wàcc drapeau bi kan moo ko décidé wul ce qui est sûr c'est que dem nañ ba àgg gouvernance ñu daal di wàccee drapeau bi. daal di takk seen drapeau bu weex yëgal ko. jeex na ñu génne dem. donc ku def loolu xam nga doo ne au depart dafa ñëw pour euh, yàq. bu jógee fa. léegi daal di tourné waat jafe am yëpp lañ bëggoon mu am saafara. certainement daal di tourné waat dem à côté de la gendarmerie mais ñoom seen objectif principal c' était. Euh, la drapeau bu weex bi. takk drapeau weex bi ci gouvernance ba alors ñu tourné xam nga une foule bu xasee ba dox rek maintenant ku nekk rek foo koy diriger rek mu dem ñu am ñu ne nañu dem gendarmerie hmm. ñi ne noonu nañu dem police hmm. xam nga pour dire que après gouvernance amuñoon benn point précis peut-être xëy na bu doon tey dañuy ne bon après gouvernance dañuy taxaw def seen suñu point de presse wax lu ñu métti dem suñu yoon mais comme boobu jamono amuloon hmm. donc dañ fa jógee ñii naan nañ dem gendarmerie ñii naan nañ dem police finalement ñu jublu gendarmerie ndax moo gën a jege mais police bi gouvernance ba ngi diggante police ak gendarmerie ñu daal di jublu gendarmerie foofu nag xam nga quand tu vas dans un endroit comme celui-là hmm. une caserne de gendarmerie hmm. à l'entrée une sentinelle ñëw pour bëgg a dugg comme ñi gis nañu li ni fi def gouvernance am na kenn ku génnee fetalam tiré et ça a blessé deux ou trois personnes et ça fait le tollé donc bu ñu déggee euh, détonation coup de feu bi rek lépp jaxasoo ñii daw ñii kii et cetera voilà un peu comment ça s'est passé ce jour-là bon léegi je vois que oui oui ce jour-là il y des centaines de morts des centaines de mm. blessés des milliers ceci bon je dis c'est possible mm. mais en tout cas man blessés parce que gis naa leen te ah. bu ma neexoon mën a joxe seen i euh, c'est vrai que am na kenn koo xam ne moom nekkatu fi génne na àddina mm-hmm. mais am na kenn koo xam ne ba léegi mu ngi fii parce que ça fait deux ans seulement on a parlé au téléphone okay. euh, parce qu'on s'est vu euh, quelque part mu jox ma numéro et puis mm-hmm. on continue à collaborer mm-hmm. donc euh, c'était ça qui s'est passé maintenant après ça forcément il s'est passé beaucoup de choses l'État qui a été surpris par ce qui s'est passé s'est organisé pour réagir pour dire quels sont les auteurs de ça il faut maintenant chercher des coupables. Et dans cette recherche de coupables, malheureusement, donc cette réaction de l'État, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. ay erreurs yu bëri. yu mel ni euh, bon bu ñu nee euh, Ndeye Fatou Thiam ci la bokk rek tout de suite on ne cherche pas à savoir dañu li ñëw. yóbbu arrestation yi fa la commencé mais déjà déjà d'ailleurs et ce qui est curieux. certaines arrestations commencé woon nañu avant. le 26 décembre. avant marche bi avant marche bi déjà am na. ay amoon nañu ay écho ay écho il allait se passer quelque chose on a donc Melni Kourouma. Hmm. Euh, qui est l'un des théoriciens du mouvement. Hmm. dañ ko arrêté avant la marche. Euh, ku mel ni Abbé Diamacoune également dañ ko arrêté avant la marche tu vois donc euh, pour dire que et puis il y a hmm. n'est-ce pas ñu bari dañ leen arrêté. une semaine ou deux semaines ou trois semaines avant la marche. Euh, parce que on savait qu'il y avait des choses qui se préparaient. manifestation boobu wala mouvement bi kan moo ko jiite woon moment boobu. bon ce jour-là euh, mënumaa wax kan moo ko jiite parce que ma mi wax si initiative j'étais en vacances de Noël. Okay. parce que moi j'étais enseignant j'enseignais à Ziguinchor. Mm. et j'étais en vacances de Noël au village chez moi à Tandouk. Okay. donc di corriger ay devoirs comme d'habitude à la veille des Noël dama doon joxe ay donc comme ça ma profité Noël yi corriger ma ñëwee Donc, j'étais chez en train de corriger les devoirs. Mmh. Quand j'ai entendu à la radio que oui, c'est passé à Ziguinchor, euh, telle, telle manifestation, et qu'il y a eu des arrestations, etc. Maintenant, Koukou Djiteon, les supposés Nyokoaron Djité, parce que c'est après qu'on saura que le mouvement s'appelle le MFDC, Mouvement des Forces démocratiques de Casamance, mmh. et que, qui revendiquait Lolo, donc euh, Bokanachi, Abedjamokoun, et que Nkruma, Euh, Mamadou Sané Dinkruma ñoom déjà arrêté woon nañ leen avant maintenant ce jour la kan moo jiite woon mouvement bi kenn mënu la wax kii la wala kële la mais li wérte wóor c'est des populations sorties de Ziguinchor euh, d'abord commune bi ensuite peut-être des populations de de de voisinage immédiat de Ziguinchor ñoo ñëwoon participer manifestation bi pour manifester seen mécontentement ci euh, yorinu euh, Casamance Casamance ni ñu ko yoree woon Bon, alors, c'est après qu'on va se rendre compte qu'avec les arrestations, mmh. donc, euh, le parti au pouvoir de l'époque <clears throat> a organisé une contre-manifestation, euh, je crois deux jours avant, ah, après, mmh. euh, pour dénoncer les Khéwon. Et ça aussi, c'était normal. C'était à Dakar ou à la Casamance Ils ont fait un grand meeting okay. euh, pour dénoncer les femmes. Et puis, c'est normal. Mmh. D'ailleurs, on le vit jusqu'à présent. Mmh. Ah, à mes manifestations, filles, il y a des contre-manifestations. et à l'issue de cette contre-manifestation euh, ci la yëf yi jaxasoo parce que euh, ci la interpellation yi commencé de façon massive euh, bu ñu xamee ni diw ci ba bi parti la bokk ñu daal di la bu ñu xamee ni diw ci parti bee la bokk ñu interpeller la mais e et beaucoup de gens ont été arrêtés alors et on était en 83 parce que décembre 82 déjà ñu dugg 83 ñoon nañu demee ba ñu programmer procès wu. Euh, ñi ñi ñu jàppoon pour novembre 83. et c'est malheureusement en ce moment-là. Mm. que les choses vont se gâter. parce que diggante bi. les populations donc on di ah ñun on a fait manifestation. am suñuy yeneen mbokk yooyu jàpp. yóbbu nañ leen mais euh, bu ñu toogee sans rien faire xëy na ñooñu dina am. Euh, dinañ leen sànq dinañ leen sànq. Mm. et il faut. war lan la ñu war a def ñu continuer seen réunion. d' abord euh, au stade te diggante décembre ak na. oui oui presque un an. c' est ça. Mm. ils ont fait des réunions d' abord au stade euh, l' actuel stade Bocandé de Ziguinchor ensuite ñu jógee foofu dem euh, de l' autre côté de l' aéroport ñu tuddee ko Diabir. et à à l'occasion de de de du procès de Dakar. mu am ñu retiré woon foofu di réunion. malheureusement euh, mu am infiltration. de mm. forces de l'ordre gendarmerie. Et il y a eu également euh, que ces gendarmes ont été démasqués et ils ont été pris à part par les populations ñu leen rey. ah ñett gendarmes. Mm. Ah, c'est ce jour-là maintenant que les choses sont gâchées. parce que ñi def loolu. Mm-hmm. xam nañ ne. Euh, bu ñu leen jàppee du ñu leen mm-hmm. euh, donc mu am la constitution du maquis. maquis bi fa la jógee. ci la ñu ne il paraît que ils leur ont dit léegi képp ku euh, xam ne vraiment. Euh, li tuuru tuuru na. Euh, te pare nga. ñoo lu ñu ànd. ku ko ku ko ku ko ku ko ku ku ku ku parewul. Mm. nga delluwaat dem toog. voilà comment ça s'est passé et le maquis s'est constitué. et c'est plus tard maintenant qu'on se rendra compte que qui constituait maquis bi. il s'appelait Sidi Badji. c'était lui le chef du maquis. booba l'abbé nekku fa woon. parce que l'abbé boo ko l'abbé ñu ngi ko jàpp. ñu ngi koy jugé Dakar. Mm-hmm. donc voilà le maquis s'est constitué. fan la ne kenn xamul on a vécu dans une situation de flou mais malgré ça les arrestations yi bàyyiwuloon. ñooñu fu ñu leen reyee gendarme yi Dakar. non non foofu à Ziguinchor Ziguinchor derrière la piste de l'aéroport dans la zone où se trouve aujourd'hui l'université Assane Seck. là où les choses sont passées. alors donc euh, voilà un peu pour euh, comment très rapidement le mm-hmm. Macky s'est constitué mm-hmm. mais kenn xamuloon Macky bi la ne. lan la ñu yoroon ñaata la ñu kenn mm-hmm. xamul. ba après les élections donc, de 88, mm. euh, il y a eu des députés qui ont décidé de chercher à entrer en contact avec Nyonyo, avec Makibi, parce que c'est les députés de la région. Okay. Ils ont dit, bon, on ne peut pas regarder la région comme ça, il faut essayer de faire quelque chose. Non, mm. nous avons fait des marches, on rencontrer les Pour dire que Nyonyo, ils n'étaient pas des gens qui voulaient détruire. Nous avons dit, ah, nous Euh, kenn yónneewuñu waaye dañuy ñëw pour ñu waxtaan ñu seet nan nan la ñuy fexe. Mm. mën a fexe ba gën gënee fi. ki jiite woon délégation bi euh, dem si yàlla le député Marcel Passen. Mm. Euh, yàlla na suuf see kawam. Mm. quand même ak Laye Diop Diatta. ak Omar Lamine Badji. bi ñu waxtaanee ñu déggoo ñu ñu leen ah ñu de vraiment bu fekkente ne bu ñu fi génnee. dara dañuy dal pare nañu pour waxtaan ak état bi ñu seet ban solution la ñu war a. indi pour saafaraaw problème bi. parce que buñ ci dugg itam xamuñu woon ne dina durer ba léegi nii. Mhm. imagine depuis 83 ah. déjà. Euh, ba 88 euh, 89. c'est quand même très long. Mhm. donc noonu la ñuy waxtaanee. ba finalement ñu ñëw en tan que député ñu entrer en contact ak le président Diouf. Mm. waxtaan ak moom Diouf ni ah bu dee loolu rek la. yan condition la ñu posé ñu ne condition bu ñu posé mooy nañu libéré détenu yi nekk. ñu euh, la ah, jugé nañ leen ba pare. ñu tëj leen lan ba condamné leen am nañu ci condamné 5 ans am nañu ci mm. condamné euh, trois ans am nañu ci mm. condamné euh, même plus. mais au fur et à mesure que donc ils prenaient des gens ils les condamnaient aussi donc ils étaient encore en prison. Ah et il y avait au moins plus de, plus de 100 et quelques personnes, mm, euh, si je me souviens bien, il y a 300 normalement. Et le président Diouf a dit, mais pour dire lolo, c'est la seule condition, mais il n'y a pas de problème. Mm. Et Diouf a pris un décret libérant tous les détenus okay. euh, qui étaient en prison pour appartenance au MMDC. Il est libéré, ci la si di Sidi Badji ne. kon de léegi man it en tant que euh, ki créer Macky bi ak sama état major ñu génn ñëw toog Ziguinchor nekk à la disposition de l' état du Sénégal pour que ñu discuter ndax yëf yi jeex Sidi génne euh, en 92 euh, ñëw toog Ziguinchor. et avec ses lieutenants. Mhm. ay ñoom Maurice Diatta mhm. ay ñoom Louis Tendeng ak ñoom Jean-Marie Tendeng mhm. ñoom ñëpp ñu génn toog ak ñoom Ablaye Diédhiou n'est-ce pas. Euh, Diamacoune sorti de prison itam mu installé wu Ziguinchor. mais nekku benn bërëb kii mu ngi woon aux œuvres catholiques. Mm. Diamacoune mm-hmm. et Sidi ñu ngi ko gardé woon euh, benn appartement bu nekkoon camp de GMI. ba keroog bu ko yàlla di moome. Mm. foofu la ne abbé Diamacoune itam nekkoon euh, aux œuvres de. dañ leen defoon résidence surveillée wala. bon résidence surveillée en fait c'était pas une résidence surveillée dans les termes de c'est un mm. non. okay. c'était au moins une manière pour l'État de les avoir là. Mmh. mais de garder l'œil ci ñoom. garder leur sécurité surtout oui oui mais ku doon ñëw pour seet leen tu a mm. l'accès euh, man man personnellement j'ai rencontré l'abbé Sidi Badji plus de N fois n'est-ce pas tout comme euh, l'abbé aussi dama ko doon seet mm. du côté de euh, des œuvres plusieurs fois ce qui fait que tous les émissaires que mm. ñu état doon yónni mais boo demee Ziguinchor si tu veux voir Sidi tu passes voir le gouverneur tout de suite le gouverneur t'accompagne tu veux le voir tout seul y a de problème ils étaient accessibles di xaar nag différentes réunions yi pour que mu am solution malheureusement chaque président bu fa toog bu fa jaar fexe na parce que ku nekk da nga am sa gis-gisu problème bi am yow noo koy noo koy gérer soit nga réussir soit réussir loo premièrement Abdou Diouf ci moom la yëf yi éclaté <coughs> donc euh, d'abord yëf yi daf ko bettoon mhm. parce que xalaatuloo ne lii dina am bi mu amee mu jéem a seet le temps que mu am tous les éléments mhm. mais comme situation bi am na Euh, ñi yaakaar ne rek dañ koy régler militairement. <coughs> ëpp ko doole. Mm-hmm. donc bu yónnee fa militaire yi demoon na sax ba nommé gouverneur militaire général à Ziguinchor. te booba ñun on faisait on faisait comprendre que lii. militairement kenn mënu ko régler mm-hmm. il faut waxtaan mais comme euh, moom président ñu ne ko militairement dañ koy régler en deux jours trois mm-hmm. jours ils ont foncé là-dedans c'est ce qui a fait beaucoup de morts et il a beaucoup d'épisodes bu ñu jot on aurait mm-hmm. rappelé ces épisodes mais c'est pas la peine bon malheureusement pour lui bi mu demee ba comprendre ne que loolu mënu mënu koo régler euh, bi commencé waxtaan bi commencé en 1998 déjà Diouf était convaincu que il pouvait régler le loolu moo waral fexe ba rencontrer Abbé Diamacoune en Ziguinchor mhm. en décembre 99 et en janvier il y a eu la rencontre de Banjul n'est-ce vraiment de tout reprendre pourquoi Bon, parce que tout simplement, la Gambie aussi s'était retrouvée dans le processus, mm. tout simplement, en tant qu'État mm. parce que Bimou, en 95, il y a eu un de la frontière, parce que le maquis installé vers la zone frontalière avec la Guinée-Bissau. Sauf le maquis bien installé. Euh, mm. Euh, armée, il y a Carnet, l'artissage, mm. parce qu'il y un couple, deux couples français, okay. qu'on appelle et Cavert. c'était des touristes a priori. Mhm. ñu ñëw bu dugg dans la région. Mhm. puis un matin ñu xëyee Ziguinchor dugg dans la grande forêt de mhm. Santhiaba Manjaak là. et puis parce dans le parc de Basse Casamance kenn gisatu leen. Ah ñu leen wër partout kenn gisu leen donc l'armée a estimé que c'est des gens qui ont été enlevés par des rebelles et donc opération ratissage. Ah ñu defee ratissage depuis Oussouye wuti euh, côté Vélingara. donc euh, tous les villages qui étaient le long de la frontière ont été complètement euh, rasée, oui, et les populations de cette zone ne pouvant pas entrer en Guinée-Bissau ont émigré vers la Gambie et ñu bëri ñu dem dugg Gambie donc forcément la Gambie a commencé à sentir le poids de la guerre et elle a elle a elle a elle a fait euh, pression sur les institutions internationales notamment mm. Croix-Rouge mm. euh, la CICR réfugiés et tout ça mm. pour que vraiment mu mën a dugg dans une euh, recherche du conflit et les combattants également les MFDC ont pensé que oui pour ne pas discuter à Dakar mhm. il vaut mieux discuter en Gambie. Banjul terre neutre dem foo xam ne kenn Banjul parce que les premières rencontres ont eu lieu à Bissau. Mhm. et ces deux pays qui sont euh, voisins du Sénégal. Mhm. mais ces deux pays ñoo xamante ne amuñu euh, la même appréciation situation bi. selon les intérêts mhm. euh, c'est difficile que ensemble ils soient d'accord que lii la ñu war a def gis nga loolu donc mooy indi un peu mhm. mu gën a compliqué <laughs> gën a compliqué mais quand même la rencontre de 99 et de 2000 à Banjul était une rencontre ñu xam ne on était jegewoon nañu lool nu ñuy solutionner problème bi Diouf d'ailleurs on était tellement content que nee na donc dañuy xaar rek élection bi février la mhm. bu passé rek ñu jeexal problème bi malheureusement moom année boobu mu wàcc. année boobu février. Euh, mu obligé dem deuxième tour. Mm-hmm. Euh, deuxième tour mars euh, Diouf est battu et le président Wade s'installe mais comme le président Wade jotoon na nekk déjà dans le gouvernement élargi de Diouf. Mm-hmm. boo xam fan la yëf yi woon. mais il dit aux Sénégalais le problème là en 100 jours dama koy régler. là au moins vous avez des archives. 100 jours dama koy régler parce que mm-hmm. et cetera. bon pourquoi il n'a pas pu le faire dans les 100 jours. pourquoi n'a pas pu le faire ci ci ci diiru. Euh, magistère am yëpp li mu fi nekk parce qu'il a fait 12 ans. Mhm. réglé wu ko parce que tout simplement euh, bi mu installé nag mu jànkonteel réalité wu. pouvoir bi. Mm. il se rendu compte que nekkuloon yombuloon. ci biti réew mi FM di waxtaanee crise Casamance bi dalal ci Ibrahima Ama Diémé Ablaye Wade am xëy na moom itam mbetteel ci yëf yi fi mu toll ak ni mu demee. bien sûr euh, ki yaakaaroon ne si 100 jours di nga régler problème bi. nga toog 100 jours yi passé. Mm. <laughs> defoo benn jéego mais mu commencé itam di euh, seet fan la war a jaar lënt lënti lan la nan la ko war a. boobu xanaa yëf yi dafa gënoon compliqué. oui yëf dafa gënoon a compliqué parce que tout simplement. Euh, Sidi bi mu génnee ñëw toog Ziguinchor. le temps que euh, problème bi réglé. ñi ñu bàyyoon ginnaaw mooy les plus jeunes. ñoo ñu xaar un an. donc 92. 93 94 ñu ne non ñi dañu jaay. loolu la ñuy jàpp seen xel. dañu jaay donc dans ces conditions ñoom bokkatuñu. donc ñun léegi dañuy créer suñu état major bopp bu bees ñu continuer xeex bi parce que yëf yi dafa yéex. ñoom itam dañu foogoon ne si di bu génnee Ziguinchor quelques jours rek ay fi réglé et tout mm. donc et n'a pas pris ça en compte. xamuloon ne affaire yi fale ñu def. xamuloon ne du Sidi kese am na ñeneen. oui xamoon na ko xamoon na ko mais pour ah. ñoom euh, yaakaar nañu rek euh, xam nga yëf yi da nga koy xam. pour nga xam ne war ngaa gaaw. daay buy takk. d'accord dañoo yéexoon daal ci ci yéexoon parce que pour ñoom comme jamono boobu donc. ñii génn nañ rek amatul xawoon na sedd tuuti hmm. jàtta yàkkamti malheureusement donc euh, ñu nekk foofu les jeunes créés un nouvel état-major. Hmm. ñu jël commandement bi donc ñu considéré que Sidi ak ñu mu génn ñu mu àndaloon dañu trahir cause bi. alors donc ñooñu créer seen organisation ñu dem a dem a dem a dem. Euh, état bi bàyyi Sidi fii. commencé négocier ak ñooñu. dégg nga et ce qui s' est passé c' est que dañu fexe ba ñu indi le nouveau chef. mooy comment il s' appelle Léopold indi ko ba mu rencontré président Abdou Diouf. donc bi bu ko euh, bi bi bi ay mbo euh, ay àndandoom gisee ne kooku ñëw na ba Dakar rencontré Abdou Diouf te tàggoo leen. ñooñu itam ñu xaar ko bu mu dellu sere daal di ko jàpp. Euh, wàccee ko mu am nouveau commandement mooy commandement bu bees boobu mooy commandement wu conjoint. saalif Sadio César Atoute Badiate parce que avant c'était Sidi après Sidi mu bàyyi Léopold Léopold nag bu mu ñëwee rencontré Abdou du te yëgalu ko ñële ñoo ñëw wàccee ko mm-hmm. léegi saalif ak César bokk nekk benn commandement conjoint te li indi nag ñàkk déggoo diggante Salif ak euh, César mm-hmm. c'est que euh, à un certain moment donc mënuñoon a nekk dans le même camp mm-hmm. kii nekk ci camp bi kii nekk camp bële euh, malheureusement nag dans les interventions Euh, période Ablaye Wade. gars yi fexe ba euh, jaxase leen. pousse César pour mu dem xeex ak. Salif wala ñi bëgg a pousse Salif pour mu xeex César parce que il fallait que mu am kenn ku nekk commandant. Mm. et puis mu na a discuter ak ñoom. loolu biñ ko defee. c'est-à-dire ba bëri jamono yi 2004 2005. Mm. Euh, malheureusement ñun wax nañu ne loolu du solution mais ils n'ont pas voulu. Mm-hmm. et ils ont poussé. Euh, tentative wu guerre Salif ak César. boo laajtee say naataango journaliste dinañ ko nettali exactement nu mu demee et malheureusement euh, guerre bi euh, am na. mais ni Salif mënut a man ba rey ko César. te sam César mënut a mën ba rey ko Salif. conséquence Salif jóge zone frontalière Guinée-Bissau bàyyi fa César moom remonté. yéeg dem nekk zone frontalière avec la Gambie ci diggante Kanilaay ak euh, Casamance. Mm-hmm. alors Kanilaay on sait. Mm-hmm. mooy village natalu Yaya Jammeh mu def ko sa résidence secondaire. Mm-hmm. te moom muy Banjul. et de temps en temps bu difficulté yi amee nag diggante Sénégal ak Banjul on dit que oui yaaya mooy armée euh, yaa euh, Salif Sadio alors que bu ñu toogoon ba seet nan la nan la Salif jógee zone sud. boo féetee côté boobu. ñu xam ne seen faute la. waaw ñoom ñoo ko def. parce que ñoo leen jaxase. parce que bu ñu bu ñu puusuloon César mu attaqué. Mhm. Euh, Salif. Mhm. mais Salif peut-être. du dem foofu on déplacé na ba dem ba jege euh, comme ça Yaya Jammeh. wala mhm. un peu le problème. et c'est pourquoi j'ai dit il faut ñu bàyyi seet na diw moo taxoon ba lii bañ a responsabilité bi à notre niveau. parce que déjà en mille ñoom ñëpp demoon nañ ba d'accord ne il faut que yëf yi jeex. te à Banjul. alors pourquoi après il y a eu ce problème bi itam xeex bi arrangé wu ko parce que daf koy yëkk day. arrangé wu ko mm, effectivement donc. Euh, Banjul voulait effectivement que yëf yi jeex malheureusement nous au Sénégal on n'a pas pris la température en main. Mm. ñu bàyyi ba yëf yi traîner. conséquence Ablaye Wade donc jéem euh, diggante boobu nag Salif était au nord. Mm. César au sud. ah et entre les deux mu beneen commandement. Mm-hmm. mooy commandement de Jakaay. oui Jakaay mu ngi diggante. position wu Salif. Mm. ak position wu César. donc tout ça bokk na. ci kon matière bi di gën a màgg. comme oui oui gën koo yi di gën a bari. gën koo compliqué oui forcément ñi eh, te ñoom itam kenn wóolewootoo ci sa bopp. parce que euh, comme ñaar ñii demoon nañu ba bëgg ba mm. bëgg a xeex seen diggante. Mm. donc kenn ku ne bu sa morom secrétaire nga yaakaar ne. dafa am ñu mu àndal te mu ñëw ci yow. gis nga ni ñu ko jaxase. mais nun on continue toujours à dire que lii armée mënu ko régler il faut que waxtaan te pour que waxtaan am foog mu am ay nit ñu mën a dem ba waxtaan ak kenn ku nekk ñoom comme ni ñu ko obtenir oon en 1991 ah député fexe ba dem ba daje ak ñoom ba waxtaan ba ñoo ñu signé te bu ñu signé génn nañoo toog Ziguinchor ba yàlla jëlee leen fii nguur Abdoulaye tam ñu doon dégg xaalis bu bari boo xam ne dañ koy dugal si makki bi di jéem a jënd ñi am ñee gisoon nañ fi sax les monsieur Casamance ak yooyu loolu loolu déjà ci dispositif u guerre bi donc ñun nañ la jàppale comme ça dem xeex de lee dinañ jàppale diw dem xeexali et cetera donc comme nit ñi xamoon nañ ne Euh, y avait beaucoup de possibilités pour am xaalis booy dem donc les monsieur Casamance là on peut en au moins quelques-uns mm -hmm. mais c'est pas la peine euh, ñu nekkoon nañu fii euh, ba Euh, depuis 2000 déjà. dem si yàlla Latif Guèye. Mm. Euh, nekkoon na fa après Ablaye fay nekkoon na fa puis Farba Senghor ñëw mm. et cetera donc c' est pas la peine de citer les mm. mais ce qui est sûr c' la méthode qui n' était pas bonne parce que xamuñu woon te bëgguñu woon ñu wax leen donc résultat y a eu un émiettement du maquis. léegi euh, Ablaye Wade itam balaa mu jeexal jeexal nguuram. il a fini par comprendre. que yoon bu ñu ko jaarloo. newuloon yoon boobu. mu commencé nag euh, mettre plus l'accent sur les négociations te dem na ba accordu 2004 hmm. yéen a ngi koy fàttaliku 2004 Ziguinchor le 30 décembre ah le lendemain mu nekk jour férié hmm. n'est-ce pas parce que <clears throat> ça s'est tellement bien passé euh, entre le ministre Ousmane Ngom hmm. et euh, l'abbé Diamacoune que des gens ont dit bon jeex na affaire yi donc euh, c'est terminé mais malheureusement à l'exercice on est allé à Foundiougne n'est-ce pas parce qu'après Ban après après euh, Ziguinchor les gens ont dit bon léegi nañ leen dem Foundiougne comme ça au moins peut-être euh, on va essayer de consolider ce qui s'est passé et Foundiougne ne s'est pas terminé les les difficultés ont commencé parce que waroon def Foundiougne c'était pour consolider li ñu waxante woon Ziguinchor malheureusement je crois que les difficultés ont commencé déjà à l'intérieur même de l'appareil de l'État euh, parce que booba jamono Ablaye Wade moo nekkoon président Macky Sall nekk premier ministre mm-hmm. hein te Foundiougne c'est dans la région de Fatick etc bon c'est pas la peine d'entrer dans certains détails ce qui est sûr mm-hmm. c'est que Foundiougne n'a pas donné les résultats escomptés mm-hmm. donc puis après bon les choses ont repris et on a pratiquement euh, compris que la la solution militaire n'était pas la bonne chose. Okay. Mais diganté 2005, euh, donc 2000, oui, 2005, 2006-2007, mhm. il y avait d'autres euh, enjeux qui étaient là mhm. et euh, la crise n'a pas évolué comme il fallait et les difficultés à l'intérieur de l'État, l'appareil de l'État, mhm. ont fait que on a considéré que le problème de Casamance était un problème secondaire. Okay. Jusqu'à l'avènement de le président Macky Sall. n'est-ce pas Mais Wade avait déjà élaboré les projets de, de, de, de comment on appelle, désarmement, mhm. euh, de déminage et d'insertion réinsertion. avec ni nii tamit defoon na defoon na ay victimes yu bëri. oui oui euh, te yooyu yëpp mën ko imputer MFDC. bon les mines oui y a forcément il y a des mines. qui sont ñoo xamante ne. MFDC ñoo leen fi indi peut-être mais tout comme il y a des mines également yoo xamante ne les forces de l'ordre ñoo leen ko ñoo ko fi indi parce que euh, kenn ku nekk dans la situation euh, tu es obligé de défendre ses position parce que euh, lan euh, les mines les mines yoo xamante fan d'abord il faut se poser la question fan la miin yi jóge. ñu jóge foofu laa doon ñëw armement bi euh, surtout. parce que diggante boobu après l'échec de Foundiougne. Euh, xam nga ci la accusation yi commencé oui oui c'est la Gambie qui ne veut pas que ça se termine yaa mm-hmm. ah, peut-être xëy eh, eh, mooy animé armé mm-hmm. les les mooy animé rebelles yi est-ce que fan la armée di jógee et cetera mais nit ñi dañu fàtte ne que comme ni ma ko rappelé rek euh, Guinée-Bissau ak Casamance pratiquement euh, même askanu la te Guinée-Bissau xeex na au moins pendant plus de dix ans pour moom indépendance moom indépendance boppam mm-hmm. gànnaay yi mu doon xeexee gànnaay yi euh, ñu leen ko doon jox dañu ko doon stocké ci biir Guinée Bissau bi indépendance bi amee ba guerre amatul Bissau gànnaay yi fale fallait mu am lu muy njëriñ donc malheureusement fab problème Casamance éclaté mm-hmm. Euh, te comme nee naa la am na ay Casamance ñu dugaloon seen bopp ci xeexu Guinée Bissau pour dimbale leen ndax dañu yaakaar ne ay seeni mbokk lañu ñu. Mm-hmm. et c' est vrai c' est frontière bi c' est des frontières. Euh, yoo xam ne théorique. Mm-hmm. Euh, mais xam naa trafic d' armes bi foofu la commencé. première arme yi foofu la commencé c' le son sont des armes ñoo xamante ne waa Guinée Bissau dañu ne. ñoom bu ñu doon xeex waa Casamance ñoo leen doon dimbale. donc bu Casamance di xeex dañu leen di dimbale voilà fay bor. donc les dirigeants de l'époque ñoo waroon a comprendre ne. dañu war a am approche mhm. euh, fexe ba Guinée-Bissau comprendre difficulté bi. Mhm. pour que ñu bañ a dugal seen loxo ci euh, li xew alante malheureusement on n'a pas on n'a pas pris cet élément en compte peut na ñàkk xam la mhm. euh, mais sinon mais ay ay épisodes u Santhiaba Manjaak ay épisodes u Tanaf ay épisodes u Samine su ma ko nettalee nii ay ay ay kangamu. politiciens yi nekk Sénégal tey muñ ko fàttaleku après de 68 les 68 ans étudiants yi nekkoon université Dakar te bokkoon opposition bu ñu leen yóbbu leen par force dans les services militaires sénégalais ñu yóbbu leen ci front bi parce que booba Guinée-Bissau ngi doon xeex pour son indépendance ñoom dañuy xam li ma wax donc zone boobu c'est c'est presque le Sénégal donc au lieu ñu jéem a situation bi à ce niveau non non ñu jéem a gérer wéy wéy bi opposition moo tax ba crise bi am euh, Yaya Jammeh moo tax ba crise bi du jeex marché au lieu au lieu que euh, de de ñu ñu gérer problème bi pour que mu mën a am solution donc loolu itam deuxième bétel donc fexe ba incursion mii nii am. avec toutes les conséquences. donc mu am reprise de la violence. ba keroog bu waa di dem il avait réussi au moins à dessiner un plan. plan boo xamante ne buñ ci duggee mooy désarmement. déminage ak insertion. peut-être que désenclavement surtout oui peut-être que problème bi dina régler. maintenant ci désenclavement bi. Euh, c'est avec le bateau xam nga enclavement bi moom des na fi ba kër bu bateau bi di couler alors <coughs> ci la nit ñuy réfléchir ne ah non li am waratu la am. dem na sax ba am prise de conscience nationale. Mm-hmm. il faut ñu éviter surcharge. ci moyen de transport mais dañ ko wax ñaari weer ñu fàtte ko. parce que on est encore retourné ci surcharge yi. Mm-hmm. donc ñu indi bateau yi ñaari bateau euh, déjà dañu luyoon Willis pour remplacer le Joola. Mm-hmm. ensuite ñu commandé. Euh, Aline Sitoé d'abord. et ensuite bu ñu commandé Aline Sitoé ba ñëw. ba ñu réceptionné ko mu commencé def la liaison. ñu commandé ak yéen ay jàmboon malheureusement Ablaye Wade jotu ko réceptionné parce que balaa euh, mu paree ba ñëw moom mu génnee réew mi mm. euh, Macky Sall toog mm. mais chance bu ñu am ak Macky Sall que Macky Sall nekkoon na premier ministre d'abord nekkoon na ministre de l'intérieur mm-hmm. am donc possibilité wu comprendre yëf yi ensuite nekk premier ministre mm-hmm. coordonner action action du gouvernement mm-hmm. c'est peut-être pour cette raison qu'il a eu toute la chance qu'il a parce que moom dafa ñëw toog pratiquement mu minimiser un peu. Euh, minimiser wu ko mais teg fa tuuti nii. Euh, option militaire bi. pour mu privilégier. discussion bi waaw. et je crois que loolu moo ñu jural. lu ñu lu ñu gis tey. accalmie bi bi dal gi am. pratiquement depuis mu toogee ba léegi dal bi am na et vraiment. ñu sant si yàlla bu baax a baax. te mun nañ jàpp ne tey mi ngi avancé jëm ci jàmm. mu ngi avancé parce que également daf ko comprendre ne. que il faut désenclaver xam nga moom moo ñëw avec ak yeneen jàmbur mu ne léegi bateau yi euh, dina doon euh, moitié prix. Mm-hmm. au lieu ñu doon fay dix mille francs pour la troisième catégorie. Mm-hmm. mu ne moitié prix. ensuite mu décider qu'il faut. que billet avion bi wàññeeku te depuis mu ko décidé au moins c'est vrai que euh, appliqué wuñu ko immédiatement mm. mais après on l'a appliqué aujourd'hui euh, là où les gens devaient ñu waroon a fay cent quarante mille ou cinq mille pour faire Dakar Ziguinchor aller-retour mm. maintenant avec soixante cinq mille mm. tu fais Dakar Ziguinchor aller-retour okay. l'époque benn vol par jour la woon mm. et c'est même pas sûr parfois mais léegi ñu ngi am quatre vols par jour deux le matin deux le soir, deux le nga donc facilité Euh, dem ak dikk bi mm. ensuite euh, Sénégal dem dikk mm. ñëw na mm. dugg na di def liaison Ziguinchor Dakar euh, Kolda Kolda Dakar Sédhiou Dakar ensuite maintenant pont bi jeex et c'était la plus grande difficulté mm-hmm. pont bi pont bi bi mu jeexee keroog mm-hmm. ba nit ñi commencé di jaar ci pont bi mm-hmm. mais ci la la ñu mën a wax ne mur bu nekkoon diggante Casamance mm. ak euh, le reste du Sénégal mm. mur bi moo daanu je le compare d'ailleurs pour moi mm. je dis c'est la fin la chute du mur de Berlin mm-hmm. parce que qu'aujourd'hui mën ngaa xëyee Ziguinchor mm-hmm. ñu añee Dakar mm-hmm. su la neexee après nga delluwaat dem fanaani Ziguinchor par la route mu desoon benn limite mais limite boobu levé nañ ko parce que à l'époque à partir de 18h, 19h déjà, bon, euh, on ferme les routes à partir de croisement Diaroumé. Mm -hmm. Les militaires ils ferment, ils disent que d'autres Diallo, ou alors dem euh, au Lampan, ils ferment, ou alors dem côté Baïla, ils ferment, ou alors Djinga, ils ferment, etc. Aujourd'hui, levé nañu yep. Donc ce qui fait que man nga dawal même jusqu'à minuit à l'intérieur du territoire euh, en Casamance, te kenn du la ne arrêté xanaa xanaa nga sonn sa bopp nga ne mm. man mi nga xam ne daan naa dem partout euh, pour contacter euh, un peu les les les les éléments du les combattants du MFDC pour waxtaan bi bu na wéy mais dem naa fa n'importe quelle heure mais amoon na jamono à partir de 18 heures même boo ne boo ne chauffeur kaa ñi dem mu ne la noo dematuma mm. donc loolu je crois ñu war ko sant yàlla bu baax a baax léegi li des mooy formaliser mm. mooy ni ko président bi waxee nañu war a consolider mm-hmm. processus bi mm-hmm. te consolider ko desul lu dul euh, moom Euh, digal bi mu joxe. techniciens yi doxal ko. fexe ba yoon yi. ñëpp dégg nañu fi nee na il a parlé de la boucle du Boulouf. foo mu jeex. mais jeexagul ba léegi boucle du Boudjé. war na jeex mais jeexagul ba léegi pont Marsassoum. il faut ñu tabax ko pareegul. Euh, ñu ñu ci door doorteel bi. Euh, defar pont Bayla ak Diouloulou. la boucle de du pour côté Sindian. nest pas pour nu mu tuddati désenclavement intérieur bi. Mm. Euh, defe naa ne loolu bu gaawee rek. Mm. Euh, vraiment euh, d'ici quelque temps. et puis ensuite réalisation sociale yi itam. Mm. ay dispensaires ak ay école ak ay te projet mu créer diggante bi. parce que dem na gis na comprendre na il a créé le PUDC. ak le PUMA. pour que ñu intervenir. justement dans les zones. des ay pistes de production ay pistes de production ay ay postes de santé. Mm. ay écoles et ñoom seen ak ay forages pour que nit ñi am ndox. yooyu yëpp bu amee je crois que. te ñu ngi ci électrification rurale électrification rurale effectivement ay laser je crois yooyu yëpp mm. euh, nekk na ay mesures yoo xam ne bu ñu ko defee ci lu gaaw. peut-être que d'ici quelque quelque temps. Mm. Euh, situation bi dina jeex. parce que le reste c'est quoi. déjà que léegi état jël na engagement dootuñu arrêté kenn. parce que nee na moom MFDC la. waaye par contre li ñuy interdire mooy kenn amul droit ngay doxantu ak ay gànnaay. di def ay cong waaw loolu moom vraiment pour sécurité ñëpp d'ailleurs mhm. kenn rek la ñuy reconnaître loolu. Mhm. mooy les forces les forces de sécurité de l'État. Mhm. mooy police gendarmerie douane euh, ah. et cetera voilà. mais en dehors de ça yow mënuloo génne sa kër doxantu ak sa gannaay nii no insécurité la pour population yi te loolu armée bi d'accord na ko état bi d'accord na ko ñoom combattants yi d'accord nañ ko. moo ce qui fait que aujourd'hui déggatuñu vraiment ay cong yu bari noonu mhm. euh, partout comme ni mu ko doon ni mu doon amee donc loolu je crois que euh, bu ñu ko seetee rek mhm. xam ne c'est vrai crise bi amoon na évolué na jeexagul waaye jeexagul mais mën naa mën nañu wax ne rek mhm. euh, en tout cas li wérte wóor c'est que kenn parmi protagonistes yi amatul intention wu li amoon am muy combattant MFDC yi kenn xalaatu ko. MFDC politique. kenn xalaatu ko population Casamance ñoo xamante ne c'est au nom des population que ku nekk naan man damay xeex pour intérêt Casamance mm-hmm. Mm-hmm. kenn xalaatu ko mm-hmm. état bi ci boppam xalaatatu ko armée bi xalaatatu ko donc li des mooy na ñu fexe rek kon fi ne daal ñëpp jàmm lañ bëgg ñëpp jàmm lañ bëgg te ñu ngi ci ñu ñu ngi ciy wax ñëpp jàmm lañ bëgg muy jeunes yi muy jigéen ñi muy kilifa diine ak aada yi muy euh, kilifa administration yi ñëpp jàmm la ñuy wax ce qui fait que ziar boo dem Casamance ñu ne la da wàccee nañu nangami kaamil pour pour ñaan jàmm boo demee ci euh, prêtre yi euh, dañ leen ne journée de la paix dañuy mm-hmm. organiser euh, benn grande prière pour que ñaan jàmm am mm-hmm. boo demee ci organisation traditionnelle yi muy jigéen ñi muy jeunes yi ñoom ñëpp loolu la ñuy sàkku mm-hmm. donc Euh, ñëpp am nañu conscience ne que jàmm war na am léegi lu ci des comme jàmm war na am du jàmm Macky mhm. du jàmm Robert du jàmm Jemme du jàmm GRPC du mhm. jàmm jigéen ñi mhm. jàmm ñëpp la il faut ñun ñëpp xam ne euh, ci jàmm ci la lépp xëj à part soma kenn ku nekk ci ñun booy wax booy dox booy def jéego xam ne. Euh, est-ce que jéego bi dina du du yee fitne wala dina jur jàmm balaa nga koy dox. je crois que loolu loolu moo ñu war. te te ñu ci bàyyi xel ñun ñëpp. Mm-hmm. ñu xam ne rek donc bu buñ ko defee xëy na dinañ dem ñu am yaakaar ne nag. comme jamono ji 2020. Mm-hmm. bu ñuy def waxtaan bi. ñu ngi ci euh, commission de dialogue national. Euh, ma defe ne peut-être dialogue bi. Mm-hmm. itam dina gëstu. ci lan la ñuy def pour gën a renforcer euh, jàmm jooju parce que bu ñu ko defee mu nekk intérêt ñëpp mm-hmm. waaw jërëjëf Ibrahima Ama Diémé xam naa fii la ñuy yem ci waxtaan wi am na solo daanaka euh, wax nañu li ci ëpp solo donte am na peut-être ay yenn épisodes yu ñu tëpp waaye jàpp nañ ne tey ku comprendrewul woon crise casamançaise bu la déggee dale ko ci man mi comprendre nañ ci lu bari xëy na problème bu ñu mënoon régler la de façon très simple au départ euh, am na fenn fu ñu sookee ba mu yegg si fii waaye comme ni nga ko waxee yaakaar sañ nañu ko am ne ñu ngi dox fi mu ne jëm ci jàmm jàmm jooju yàlla na sax yéen itam groupe de réflexion bi ngeen def ci liggéey bu am solo bëggoon nañu ci ñëw ko dul may ñu lay gërëm rek di la sant di leen ñaanal aussi yéen mission bi ngeen nekk yàlla defal leen ci ndam en tout cas amoon nañu mbégte mu koy dalal la fi jërëjëf oui peut-être préciser nekk groupe de réflexion bi effectivement mu juddu en te loolu mooy li Macky Sall euh, indi. bu mu mu nekk un peu différence euh, approche bi ak moom. ak monsieur Casamance voilà parce que moom euh, comme bi mu toogee mu ne léegi man yaakaar na ne. kii ko jàppale. pour mu falu di Robert Sagna. Euh, mu ngi koy ñaan mu dimbale ka ndax lii mën a am Robert ci la créé groupe de réflexion donc 2012. te diggante 2012 ak léegi. justement gis nañu vraiment résultat yi ñu am yu am solo yi donc moo tey itam ma ngi remercier ñëpp ñu ci bokk. du man rek donc loolu. dinañ ko dinañ war jot na jot na ñu préciser ko. te euh, itam euh, ba léegi bàyyeeguñu ñu ngi continuer te yaakaar na rek. Euh, ni ma ko waxee rek li des li des yàggatul. incha allah te yaakaar ne rek. yàlla dinañ jàppale yéen ñun itam ñu ngi sàkku seen ñaan. te ginnaaw tey nag lépp lu ngeen am ci soxla pour que ñu gën leen leeral. Euh, ci ni nga fii demee ak fu ñu toll. mais euh, dinañ dinañ def suñu kéem kattan. lu ñu mën a wax ñu wax ko. Euh, lu ñu yaakaar ne loolu la war a wax itam nañu ko wax mais toujours ci jéem a seet. lan moo gën a baax pour mu mm-hmm. defar. parce que itam kuy wax wala kuy jëf. yow yaay yàq waaye defar donc euh, loolu itam ñu ci sàkku tuuti compréhension mm-hmm. pour que nit ñi bañ yaakaar ni rek euh, xëy na dañuy xëcc couverture bi ci côté bi wala côté mm-hmm. bële noonu non. jërëjëf Diémé ñu ngi lay gërëm bu baax. daje beneen yoon incha allah. merci beaucoup jërëjëf Ibrahima Ama Diémé la ñu doon dalal ci démb ak tey doon waxtaanee crise Casamance 16 bi juddu décembre 1982 ba tey ñu leen di euh, gërëm ci déglu bi gërëm itam jaawo jàllo mi nekkoon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom ma faxe woon ci kàddu gi dig daje beneen dimanche incha allah leneen ak keneen jërë ngeen jëf ñu yendoo jàmm